waaw j'ai vu CUSEM mu ngi utiliser le syndicat. CUSEM mm-hmm. authentique bu Dame mu ngi koy utiliser contre les travailleurs pour l'intérêt du. parti Pastef si je donc à la limite. non dooguma da nga taxawu am solo. grève CUSEM authentique bi ñu gis tey da nga jàpp ne yàlla main de Ousmane Sonko dedans. non xam nga Dame Mbodj c'est un militant de Ousmane Sonko. il s'en défend nee na. non quand même Dame Mbodj c'est un militant de Ousmane Sonko mais mën na ko sax nekk am na ci droit. mais war naa am honnêteté intellectuelle séparer le syndicat qui défend li nga xam ne mooy àq ak yelleefu travailleurs yi que muy xeexal Ousmane Sonko ci xeex boo xam ne c'est une bataille politique. Ah, maintenant moi je peux comprendre homme politique yàgg nañu allié ak les syndicats mais Ousmane Sonko ban alliance la ma sam ak syndicat. amul donc son appel du pied là c'est du vent. mais si je vous comprends bien grave c'est même de l'incohérence li nga wax dafa am solo en fait parce que. mais nag euh, ça a commencé dans le secteur de l'éducation nemmeeku nañu benn grève bu Kisum authentique tey il a fait un appel aux commerçants et aux transporteurs da nga jàpp ne son appel s'il est écouté mën na indil jafe-jafe doxalinu réew mi. non son appel ne sera pas écouté. d'ailleurs dama la bëgg a wax ne ça a commencé dans l'éducation. non CUSEMS. c'est un syndicat d'embauche qui est euh, les les enseignants ont mené des grèves pendant des années ils ont eu des satisfactions nguur gi. Mhm. da leen jox satisfaction. tey boo jëlee masse salariale fonction publique jóge na 600 milliards dem 1300 milliards mais loolu la ci ëpp ci enveloppe bi ci enseignants yi la dem. vrai donc euh, je pense que ñoom seen bopp waxoon nañu ne. Euh, signé nañu ak état vraiment période boo xam ne dinañ toog lu yàgg. Mhm, période de grâce. de grâce mais est-ce que revendication donc tey Dambodj bu fekkee ne mënul sur le terrain politique mu mobiliser parce que quand même Dambodj tekkiwul dara. lan la tekki à part lan la tekki de représentativité. mais non Dambodj amul 18 pour cent. non Dambodj il est arrivé troisième c'est pas négligeable. non non je parle pas de ça c'est un syndicat dama ne. à part politiquement lan la tekki. fan mooy base politique am. comme xam na ne tekkiwul dara pas de la politique lui. non na ne tekkiwul dara politiquement bu dee enseignants yi dinañu nangu ñàkk fulla benn nit jël seen instrument de lutte di ko utiliser pour Ousmane Sonko ak pour. nee nga léegi vous appelez l' état à prendre ses responsabilités. oui état da jël ay responsabilités non parce que syndicat dafa am ay chartes yu ko tënk. dafa am ay chartes yu ko tënk donc dàmbo su ko respecté wul nañu teg ay daan ci kawam. jusqu'à parce que nag jàngu suñu doom yi non kenn warul jël jàngu xale yi.